jaa ngeen jëf ci ñun ci DTV 19 na xabaaru marax yi. la ca gën a fees bokk na ca ni lu jëm ci xeex wàllum pollution ca jam ñaajo koppar gu toll ci un million ci xaalisu dollar la ñu yëkkati xeex wàllu gunimel waxtaan amoon sànq dañ si ñëw ci biir xabaar nam gën a yaatoo loolu ci bokk lu jëm ci élection yi dëgmal nu su ma def ba gën a bàyyi xel njàng mi bàngaas bi nga xam si rek mooy dàmbooj ca kusems moom mi ngi bëgg ñu xolaat pexe ci li nga xam mbirum njàng ci biir Sénégal gi ba man ko lijjanti ba lépp man caa génn kàllaamay réew mi dañu ci ñëw ci biir xabaar tam dana ci bokk lu jëm ci tukki ak sa njaboot ci benn oto daanaka Sénégal yu bari ñaawlu ko lool accident yi am bërki démb doy na ca misaal ñu bari indi seen jàngat ci wàllu guddi mel daañu ci ñëw niskis faram fàcce gi daañu ci njàmbaas li nga xam te moo jëm ci journal de la campagne Abdoulaye Ndiaye moo koy euh, faram-fàccee tàmbali xabaar yi jëm ci li nga xam moo soxal mbirum euh, rek euh, njàng ci biir réewum Sénégal nu su def ba njàng mi tegu ci yoon programme bi mën koo xoolaat bu baax ñi nga xam ñooy waa CUSEMS ak waa COSYDEP seen kàddu jib na ko COSYDEP moom jàpp nañ ni dañoo war a ëngamloo ëngamloo gu yaatu waxtaane mbir mi teg ay xàll yu yees yoo xam mu ci awee njàngum Sénégal dina mën a suqaliku ëllëg ndaje mën ci wote woon Safeetu Koli Bal di fekkee woon na ko reportage ci jamonoy élection yu ñu nekk COSYDEP jàpp ni rek jot na ñu lal waxtaan jëm ci jafe-jafe bu njàng bi ci Sénégal jàkkaarloog ak juróomi kandidaa yu fas yéene jongante loolee ngir saytu système éducatif bu Sénégal. du parti politique moy éducation kon nak ki ñuy woteel ci éducation rek lañ koy mëna naté mo waral ñom ñëpp ñu dajal leen fi euh li nga xamni nak fa lañ leen di xaar moy évidemment yenn question yi nga xamni ne na ci biir waxtaan yi moy di nan la fexé ba dootul amati benn xalé buy njàng beeg njàngale di beddi kooku pour ñun mbir la bu am solo beneen bi moy ñu ñuy fexé ba xaalis bi ñu duggal ci l'école bi mu dem ci gox goxaan yi ba gunge ñi nga xamni ñoo gëna a doolé ci biir yooyu la waxtaan. candidat bu ci nekk daal di wane lan mooy programme am jëm ci njàng bu am qualité fii ci réew mi. daañu nag jëm liggéey ay kuréel yu bootewul ci benn gouvernement ñuy wax ONG wala bokk ak mbootaayu syndicat ba ci yeneen kuréel yi nga xamante ni am nañ ngir fas yéene fexe ba su sukkandiku ci wàllum njàng mi mu gën a ñoŋ te it sax loolee booy nimmiku suñu programme am nañ ci lu ñu taxawal ñu duppee conseil supérieur dëgmal ko ci wàllum njàng mi. jàpp nañ ni alal bi nga xamante ne moom lañu gis ci suufu Sénégal rawatina lii di pétrole ak gaz dañ ko war maanaam buñ ciy jëlee jappalé ay secteurs yu prioritaires yu mel ni wàllu njàng mi ak wàllu wergu yaram. que sont par exemple l'éducation la santé et autres. jafe-jafe jëm ci financement bu éducation doon lu leen soxal ci noonee COSYDEP jàpp ni rek lu ñuy jëlee ci exploitation pétrole ak gaz war neen ci bàyyi xel ngir rek saafaraal yenn ci problème yu njàng bi mais ci li am ci taxi ah, euh, ci ressources yi ñëpp di wax mooy gaz beeg pétrole bi jàpp nañ ni loolu mën naa nekk na justement euh, solution ak buntu bu ñuy fajee mbirum njàng njàngale bu ñu jëlee benn pourcentage jox ko njàng beeg njàngale boo demee Inde loolu mooy li fa am. ci boobu la session ñu ñaar ñii di candidat yu fas yéene jongante ngir jiite réew mi ci noonee COSYDEP jàpp ni rek ay coppite war neen koo andi ñoom nag li ñu bëgg mooy xool nan la ñuy def ba lii di secteur éducatif du am benn jafe-jafe ëllëg. jaajëf Safiatou Koli moom moo demoon seeti waa COSYDEF doon waxtaane njàngum ëllëgu Sénégal mosuma def ba lépp gën a ñoŋ waaye itam la leen soxal euh, programme jëm ci mbirum njàng mi tam ñi nga xam ñooy waa CUSEMS dàmboo ci moo ko jiite ñoom it waxtaan ci wàllu guddi mel la ñu waxtaanee mooy fexe ba xool candidat yi ku ci ne lan lay proposé ci mbirum njàng mi lu koy mën a soppi mënta ñàkk ndax jàppees na ni mbir mi fi mu toll dañ ko war a dugal bu baax ci programme yi nga xam te ni bi ñiy doxal euh, politique ñi ngi koy doxal waaye itam dugal ca li ñu kàlla kàllaamay réewum Sénégal di langue nationale yi ndaje ma ci woote woon yaatu woon lool dañ ci xuus ànd ci ak dàmboo ci lam ca dénk su reportage bu ñu bëggee jëm ca kanam dañuy def li réew yëpp di def yi nga xam si am na doole amul benn réew ci adduna bi bu am doole boo xam ne ay doomi waa réewam ña ngay làkk ña ngay jànge ci làkku jàmbur amul ñuy formé ay sénégalais yoo xam ne ay européens yu ndaw lañ mais loolu dafa war a dakk ñu moomaat suñu bopp moom sa bopp nag mooy li nga xam ne moom la développement ci la sukkandiku muy njàng ak njàngale nga defaral ko sa bopp tënkal ko sa bopp tëggal ko sa bopp loolu lañu amagul loolu lañ bëgg candidat jël ci responsabilité jël seen engagement wax ñu ñoom loolu lan lañ ci xalaat ndax pare nañ pour que boo demee maatam ñu fay jàngale làkk wa fa ëpp doole muy alpulaar boo demee Casamance ñu fay jàngale ci ci daara yu lalu yi yi nga xam ne xale bi di dara ñu ci dal baa ñu dem di leen jàngal seen joolaa boddi konte bi am ci ni ñuy faye liggéeykatu nguur gi daa war a dakk dañoo bëgg jàngalekat bi médecin bi douanier bi ak ku mën a doon ngay liggéeykatu nguur gi comme ni ko luwaa bi waxee ñu yamale leen yamale leen nag du ñu yam salaire waaye lépp ku ci nekk li ciy sa àq ak say yelleef te loi bi wax ko ñu jox la ko bu ko defee li ñu ameel jàngalekat yi tam muy ab bor bu ñu leen ameel ba tax at yëpp ñuy garew ñu fexe ba loolo ñu saafara ko bu ko defee jàng mi an ànd ak dal parce que su jàng mi amul dal li ñu bëgg pour jëm ca kanam ñun Sénégal duñ ko am. mu doon dàmboo ci wax ci mbirum njàng meek dugal ci kàllaamay réew mee kàddoom ko euh, Koli moo ko euh, taataan xibaar yi ci beneen mbir jàpp leen ni fexe ba xeex li duppee polition mooy jaww ji xajam gi muy xajam boo ko nokkee mu jur ci yow musibam waxtaan am na ci ay kàngam waxtaanee ko am na koppar gun takk teg bëgg xeex wàllum pollution fekk nga xam mooy jëm ñaajo ndax ay liggéeyukaay kon faaw ñu teel a jóg ca teel waxtaane wàll gi ndaje moom mais soxna Adama bi tey fekk na ko reportage. bureau bi nga xamante ni mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu alam gi amal nag lii di composante de bu projet bii ñu naan ville durable mu nekk ab initiative boo xamante ni dafa yokk rek lii di promotion énergie renouvelable yi ak it lépp lu jëm ci wàllu déchet ci parc industriel yi fii ci Sénégal. dañ doon xool ay dëkk yu bees yu mel ni jam ñaajoo entreprise yi bu rëbb liggéeyukaay yu fay dem di fa di fa di fa di fa di fa fas yéene sampu nan la ñuy def ba nga xam ne si dinañ leen xelal dinañ leen gunge ba lu ñuy liggéey dina baax dina dina jur dina jur koom mais aussi tekk ci fànn boo xam ne si day respecté seen digganteeg alam bi. ca noonee nag dakaar ak Diamniadio ñoo nekk ñaari ville yi nga xamante ni ñoo ci nar a jariñu Dakar. Dakar nekk ville bu yàgg mën naa wax ni sax ville boo xamante ni yàgg naa am ay parc industriel yoo xamante ni fi mu ne nii nekk nañu ay industrie yu ñu wax a defaraat et puis ville bi nekk ci wetam doon lu yees wayit nekk fi mu ne nii loo xamante ni mi ngi ci yoonu yokk lu am solo la ñu gis lu mel nii mu doon nag loo xamante ni dinañ ci jël leçon ci Dakar bi nga xam ni mu baax wala mu bon ci defirin bi Diamniadio man ci profit fi teewu ngir gën baax ci niñ koy organiser ci walum industrie. organisé notamment au niveau des industries. lu toll ci benn million dollars la ñu génnee ci diirum ñent at ngir financer bile projet ñi ko def nak di Fonds mondial pour l'environnement. ci ñent at yi daal jàppale nañu ci lu tollook million dollars million dollars bari na bëriwul mais nak lu ci ëpp solo mooy su fekkee ni am nañ ci résultat yoo xam ne si yu baax la mun nañ wéyal financement bi parce que tey ci àddina bi réew yu am doole yu bëri nangu nañ ne war nañ financer réew yu néew doole yi. les programmes nag ñi ko jëmmal nekk waa ONUDI ngir mën a yokk li nga xamante ni moo di croissance entreprise yi jaarale ko ci industrie. ca noonee nag waa BMN di woo képp koo xamante ni mën nga cee dugal sa loxo ngir ñu mën a séddoo njariñ li cay tukkee xibaar yi wuy ci benn wàll jàppale ni lu jëm ci mbirum mbalit yi yenn communes yu bari ci biir Sénégal dañ cay ami jafe-jafe ndax amuñu jëmtukaay bi war ngir mën a dindi seen mbalit na mu ware moo tax bànqaas bi ñu ko dénk di UCG nekk di woote waxtaan waaye itam di xool pexe ci wàll gi ña nga woon ca Jurbel di njaareem foofee sax soppi na xarkanam bu baax fi ñu toll ni ba ay doxal yu yees mën na faa am la fa ne ci mbalit dana ci mën a génn Mansour Sow ñëwaat na ci wàll gu ñu mel ñu ko muy ay ay camion waaye tamit ay peel ak pic ay ki bale lépp rek ñu jublu ci ba fexe rek di sétal capital bu Bawol kanam gi nak doon kanam gu tilim go xamanteni tay tey ji unité de coordination de gestion des déchets solides jóg nañ ci tay jii ngir fexe rek ba Diourbel jotaat xar kanam bu mu amone nous sommes en train de faire le tour. dañu nekk rek ci jamono jile di wër gox ak goxaat yile balaa ñuy yegg si fii ci Diourbel jaar nañ fële nga xamante ni mooy ca Thiès jaar nañ tamit ca Kaolack dañ ko tënk rek liggéey bi maanaam fexe rek tey ji ba set ak setal lépp loo xamante ni ay gox ak goxaat yu nekk fii ci réew mi ndax xam nañ ni tey ji ñi nga xam ne ñoo nekk ci bokk moomeel yi lii amuñu doole ji leen mën a permettre tey ji ñu mën a amal liggéey boobu en train lii nag jural na mbégte askan wi nga xamante ni dañuy yeewoo fii ci Diourbel ndax jàpp nañu rek ni ko Jurbel amee ay jafe bari nañu ay gox ak goxaat yu nekk ci mim réew tey jilee dañoo am jafe rek ngir mën a yor lépp lu jëm ci wàllu mbalit mile. la gestion lii daal defuñu lenn lu dul delluwaat rek di ko rafetlu ndax tey jii xam ngeen ni ñun ñi nekk ci bopp bopp moomeel yi lii dañuy am ay jafe-jafe yu tar sax ngir mën a yor lépp lu jëm ci wàllu mbalit mile loolu day laaj doole day laaj ay moyen waaye bu ñu génnee foofu tamit askan wi war nañoo gën a xoolaat seeni doxalin ndax tey ji dara jariñul tey ji ñuy fexe di setal bu fekkee da ngay setal tamit nit ñi di tilimal nit ñi daal nañ fexe rek di changer li ñuy duppee seen comportement. on peut pas régler à chaque fois c'est le même problème. on est en train de mettre les formes. dispositif bi nga xamee nag jot nañ ko amal fii dañ koy wéyal ci gox ak goxaat yépp yi nga xamante ni fa la ñuy jaar ñu tënk ko rek ba fexe fépp foo xamante ni mbale da ko nekk ci réew mi rek ñu fexe rek ba dandale ko askan wi. d'infrastructure qu'on bu ñu fi bëggee jëlee nag xar kanam boobu boobule wala sax mbalit mi naan xus xusaaral ci dëkk bi lii fala budda nag askan wi ñoom ñu changé lépp lu jëm ci seen wàllum comportement dispositif de collect bi nga xamante ni nag UCG jël nañ ko dinañ ko wéyal ci fukk région ak ñeent yi nekk ci miim réew jaajëf Mansour Sow xibaar yi wëcc ci benn mbir ñu ngi nekk jamonoy campagne électorale woto yi bu ñu dee xool ñu ko jëfandikoo doona bari lool rawatina candidat yi ak seen i cortège moo taxit location bi ña nga ca ni ñaa ngi dem du luy oto borom parking yi ña ngay doxal xay na waaye li ci nekk danger rek mooy léeg-léeg sa oto yàq mën na caa am mais mun a ñaan dem na seeti ñëy luye ak ña koy dem di ko luye ji reportage. loué oto ci waxtu wi nga xam ne kon ñu ngi ci biir campagne électorale bi dina mel ñu bëri ñu cay yëngu di ko xaar bu baax a baax wante si garage bi nekk ci Padois location bi bëreegul dara. transport en commun moom ak campagne yi il faut ñu soxlaay oto te ñun ñu ngi fi di leen xaar pour bu ñu soxlaa oto ñëw si ñun d'ailleurs chaque année saa yu campagne mosay am muy campagne yëpp. dañuy ñëw fii luye ay minicar mais ren nag comme nu démb la commencé ñëwaguñu am na ay contrat yu ñu def mais nag jël seeguñu comme démarré guñu carrément mais saa bu ñu soxlaa oto bu ñëwee oto yaa ngi fi. li ni mel kon mu mel ni xewul ci société bi nga xam ne kon dañuy loué ay oto Sénécartour mu ne jamono ji li ñu jot ci ay sollicitation euh, bëri na. am nañu ay sollicitation yu bëri yu bëri yu jóge ci ay candidats ak yu jóge ci aussi ay coalition donc euh, oto yi dem nañu yu bëri dem nañu dem nañu campagne aussi donc voilà baax na baax na de baax na si ñun aussi. li ni mel yi gis ko ci gis-gisu Samba Gueye minicar yi lu bëri dañ koy loué ngir jox ko jigéen ñi. campagne bi ay oto yu bees ñoo ci ëpp surtout ay 4 x mu ci ëpp mais minicar yi moom ay quelques militants surtout jigéen ñi ñoom ñu la ñuy dugal fa la di dugal ci minicar yi ñu leen di xaar waaye kon ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngu ci mbir moomee ñu ne kon jamono ji am nañ tiitaange bu baax a baax surtout bu ñuy nemmee ay violence ci biir campagne bi. xam nga campagne moom da ngay tiit da ngay tiit parce que sa matériel moo dem. donc da ngay tiit wante nag ñun Sénécartour suñu jël nañu suñu ay dispositions. moy jël nañu suñu ay chauffeurs yo xamné dañ leen former ci anam yoy non bu amé ñu mëna ñu mëna faire face à à à à à cette situation bon ba paré xol nañu ci candidat yeeg coalition yëpp yu jël ndax ñom dinañ mëna am nañ solvabilité bu leen permettre après euh, en cas de casse. ce qu'on ne souhaite pas parce que kenn souhaité wul loolu en cas de casse mu am euh, ñu mën a ñu mën a fay oto yeeg yooyu. di luwee ay oto li ni mel kon muy dox bu baax a baax ba tax na ñenn ñi cay yëngu ñu ne kon seen bamba mi ngay maase jamono ji ci waxtu campagne bi loolu dem sax ba ñenn ñi di ci wax ni campagne bi at bu jot dafa waxoon am. xibaar yi wul ci benn wàllu ba tey campagne électorale bi ak la ci am ci wàllum animation ndax fi toll ni euh, cortège gu ci ne am na waykat boo jël wayam ngir di ko animer say li nga xam mooy say yëngu-yëngu moo tax waa SODAV ñoom jàpp na ni jot na ñooñu jëfandikoo yooyu waaye ñu fay leen war a fay ne ay droit d'auteur ki nga xamoo ni soxna Awa Ba def ci gëstu bu xóot ñu teew reportage yu def ci wàllu gu ginnaaw daje bi SODAV doon amal ci teewaayu artistes yi ñoom yi leen nag taxaw nañu temm ngir mën a xeex seen ak ak yeleef waaye tamit di wax ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo ngi koy jànkonteel ci bi ñuy bind texte yi ci wàllu musique waaye tamit ngir mën a fësal seen morceau yi. waaw c'est vrai candidat yu dañuy bëgg di utiliser musique pour seen campagne yi xam moo koy xumbal moo koy neex c'est vrai mais donc loolu. musique bo xamné ne neex na la mu ngi xumbal affaire di xam di ko dagan bien c'est bien donc xumbata dagan mais liggéey leen avant que ce cette musique là nga koy mën a ci ce meeting amna ñu ci liggéey ñu bëri dañ ci liggéey ñu bëri dañ ci teg xaalis donc il faut nga fay droit d'auteur yi. ci lu ñeel loolu nag njiitu kuréel bi ëmb artiste comédien yi nekk fii ci Sénégal nee na dañ ko ko yéex a xamal loolee war a sax ba teewul rek ci daje bi waaye tamit bëgg ñu protéger li nga xamante ne mooy œuvre dramatique yi muy laaj yi tamit ñu gën a fulaal artist comédien yi. bi gis benn candidat bu ne comédien bi dama bëgg nga animel ma samay meeting. comme bi ñëw animé yor micro def un peu d'humour un peu de sketch mais œuvre boobu dañ ko war a créer dañ ko dañ ko protéger. Euh, biñ may presque boobu 11 heures passent na ñu a dañu def réunion 13 heures. à parce que kenn du ko fulal mos kenn fayda au contraire. dañ ko war a jox gëdd jox artiste rappeur bi nag néna liko gënal moy xaar rek ba bésu élection yi mu dem voter ji tan candidat wam sama rôle euh yenn ñi ci importance vote yenn ñi ci dem nañ jëli seen carte euh, voté leen. ci campagne électorale bi nag parti politique yi dañoo taamu di jëfandikoo li nga xamante ne mooy œuvre artiste yi ngir rek mën a amal seen animation loolee wala sax ba ñu jébbal ab benn bataaxal jëmale ko ca direction générale bi nga xamante ne mooy yor wàllum élection yi ngir rek ñu mën a jox cër ak ak artistes yi. jaajëf soxna Awa Ba waaye itam jaajëf ci ànd beek ñun DTV xibaar yi wuy waaye ci beneen anam bi yegg nañ ci waxtu journal de la campagne Abdoulaye Ndiaye moo koy faram-fàccee. mbokk yi bisimila ni nga ko waxee léegi Modou Mbacke ñëw ci xibaar li nga xam nag moom moo soxal campagne électorale euh, mu mel ne nag daañu dem ci fële nga xam nag moom moo di euh, toppi candidat président Macky Sall coalition benn bokk yaakaar bi nekkoon ca Ndar Géej ba daanaka jaar ca Fede Kébémer ak euh, Omar ki nga xam nag moom moo di ma Maître Madické ñëw ma Madické 2019 ba demoon ca Mbacke Kajoor ak la wër ngër foofe ak it ki nga xam nag moom moo di candidat Ousmane Sonko ma nekkoon ca Kaolack Ndangaan ak ki nga xamante moom moo di Qui dit Idrissa Seck euh, mi nga xamanteni euh, ma nga won ci ak yenen gox yu wërngal fofé mu campagne électorale bi euh, jëm ci élection présidentielle 2019 euh, ci niñ ko waxee sànq bokk na ci ñi nga xam nak ñoo di membre bu coalition Benno bokku Yaakaar ña nga woon nag ca Ndar géej ci njiit la di Macky Sall président Macky Sall mel nak seen bëbët ñom ñooñee ca nañ ko tettoo moy tabaat ko ci réew mi ndax dal gis nañ ne amna ci ñom lu ñu gis lo xam nak dal na seen xel ci liggéey bu mu def ci réew mi e, kii di Ousmane Ngom ak Mary Teuw Niane ñoom ñi ñëpp nak ak Ahmed Fall Braya ak Mansour Faye e, daal dinañuy rafetlu bu baaxa baax e, li nga xam nak mom modi di liggéey ak bilan bi nga xam nak ki di seen kilifa di président Macky Sall def na ko ci biñ ko dénkee réew mi ak léegi ñu ànd ci ak Codé Ndiaye ma ñu ko toppal. dëgg-dëgg ñu daal di gis ab Macky Sall boo xamante ne nii confiance dëgg la am na ci meeting bi mu amal fii ci Saint-Louis étape bi nag li ko gën a màndargaal bokk na ci booloo bi nga xamante ne ni moom la ñu ci leader politique yi nga xamante ne ni ñoo nekk ci diwaanu Ndar. atum 2003 ci parax parax ubbi nañu dex bi ubbi géej gi gis nañ musiba bi ci am plus de 300 morts malheureusement lu difficile la géej kenn du ko song te xamoo lu mu doon waaye après tant d'études tant d'années d'études dinañu tàmbali. Le baliseur Samba Befal est déjà sur place pour assurer balisage bu Belbi et daañu ko def ni def pour que Ben gàllankoor Dodul am. Kifine fi ministre Bior yor wàllu biir di Ousmane Ngom dina ko fësal féddali kóllëreem dina ko féddali kóllëreem ak Macky Sall moom nag muy xamné ni Macky Sall amal na ay djégo yu am solo ci diwanu Sénégal ganna ba nga xamante tàbb nañ ko ci vision stratégique jusqu'en 2035 et vision bobo am déjà 7700 milliards yu koy xaar kon ban candidat moko am amul ñetteel bi modi fo dem ci Sénégal population bi nit ñaa ngi fees dell nii ñu mel ndar gata du makissal mega meeting bi nekk na itam ab prox ndollu ci Ahmed Fall Braya bi nga xamante ne ni moom PDS la nekkoon ngir nag mu itam feddali bokkam ci Benno Bokk Yaakaar moom nag dafa jàpp ni dara andiwu ko ci Benno Bokk Yaakaar lu dul Macky Sall. ñi fi toog ñoom ñooy ndar li ma di ñaan le 24 février 80 pour cent laa bëgg fii ci ndar man ak Mansour ak Mary Taw ak ñoom Awa Ndiaye ak yëpp daañu ànd. on va envoie no tiro kate daañu seede suñu mbokk yi nekk Mboro Lompul Potou Kayar Yaraax Mbour Joal ba Elenkin waa euh, Nouakchott ak Nouadhibou on va faire des caravanes pour jàppale waa ji kii mooy gor kii moo jëlee jàppale. Mansour Faye Mary Teuw Niane ak yeneen itam responsable yoo xamante ne ni jël nañ kàddu gi ñoom nag ñoom ñëpp seen mébét mom moy fexé ba fal seen njiit. ci ngoonu 24 février 2019 loolu nag ngir ñu amal ko nee nañu faw nag ñu booloo doon benn ngir nag saint moom moom tàbbi ci loxo benn Bokk Yaakaar Codé Ndiaye bawaguñ la sax ba tey dañuy des nag yow ndax euh, président Macky Sall wàccandi woon na ca Kébémer ca région bu Louga foofee nag euh, ngir làqu ga nga xam nag yenn ci barab làqu na ko foofe moom digg ne na kat buñ ko tabaatee ci réew mi dana fexe ba def kim kàttanam ba loolee mën a saafarawu wàllum courant naka noonu ci mboolem dëkk yi nga xam nag ñoo wër euh, loolee di Kébémer ñu teewlu la nga fa jële campagne Bokk Yaakaar cortège majorité présidentielle daal di axe nord bañu tiwawon cortège Benno Bokk yakar def ay escale ndand ak pal ngir nak dadi ak militants yi waaye Kébémer la Makisal, Sall amal meeting bu am solo Bo xamante ni bari woon na mbooloo ci biir discours am Macky Sall désenclavement na lu population de Kébémer Limobagawak, ma bëgg wax déjà tali Kébémer ceeb Sare Dao mais aussi Taufer, Toubarouf ak Kébémer Thiénaba Kajoor Lolo, ay yoon ne yegg na ba danañu yaatal courant bi ci biir département bi notamment ci Géoul ci Darou Moxti ci Ndande ci Sam Yabal ci Bandéñ ak Touba Mérina ci Nguña Ngouraan ak ci Loro loolu déjà programme la boo xam ne dafay tàmbali donc li may wax fii ci département de Kébémer dafa nekkul lu ñuy laam-laame wala di làmbatu dafay programme buñu programme que bind ko am alal ji ko war kon li le 24 février dès le premier tour le département de Kébémer soit parmi les départements qui vont réélire le président de la République parce que cela est votre choix. gannaaw Kébémer caravane coalition Benno Bokk Dadidef, Escal, di def escale Louga ay responsables locaux di woné seeni bop nak ngir nak amal mobilisation bu jéggi dayo Sénégal bima koy djël en 2012 xam ngeen né xuy kamaj bari woon na ci réew mi Sénégal bima koy djël dundu gi séron na kon xalaat xam-xam ak yéene mo lal sama liggéey à travers le plan Sénégal émergent lolu moo ñu may tey fi ñu nekk. waaye doo nelaw ba yeewu ba ne la jógal jógal élection jot na nga yeewu di waxtaan rek waaye lii ma gis fii gaañi lii ma gis fii sama gaañi sama gaañi gisuma leen mbaaw gisuma leen mbaaw de waaye nañu fexe nag ba nangu jël yi ndax jël yu leer naññ lay doon faudra être sportif maire bu commune bu Louga di Moustapha Diop di xam ne nii fii ci Louga moom ndam li daanaka am na ba noppi. tey su ngeen gisee gaa yi yuxu président leen dugal ci naaj bi taj bunt yi taj fenêtre bi amatul fu nu jaar borom dinañ koy naaj di wax jàmm tey nag am na mbégte bu rëy ci waa Louga tey wane ne bisub dee. ku dund rek doo gor bi di Macky Sall ak stafam ñoom nag daal di itam dégmal Saint-Louis gannaaw ba nga xamante ne nii amal nañ seen meeting ca Louga lépp jëm ci wàllu convaincre Saint-Louisiens yi ngir nag ñu mën leen jox seen ay baat ci ngoon ak 24 février 2019. Codé Ndiaye bokk na ci ba tey beneen mbër ci ñoom ñooñu di maître Madické Niang moom nag it coalition Madické ma ngay a wëyal ab visitam ma ngoon ci kër kilifa yi diine yi ginnaaw foofee nag euh, nga xam nag moo di Mbàkke Kajoor euh, ba fa demee ba taataan ay ñaan ci kilifa ga fa nekk di Serigne Moustapha Bassirou daan na koy jeexale ci ab meeting fële nga xam te moom moo di ca Linguère Omar Danson moo leen toppi woon ak bi mu amoon fale ca Touba Mbacké candidat bu daal dina continuer visite ci kër diine yi ci noone la jaar ci Mbàkke Kajoor ngir sàkku ñaan ci xalif bi di sëriñ mustafa Bassirou mu tombe ak màggal boobu la diwaan fii bërëbu ñaanukaay la ma ñëw tàllal sama loxo sëñ bi ni ko ñaanal ma nekk ko dogul ma si barke Cheikh Sidi Makhtar dogul ma si barke sëñ Baara réew mi ñëw sama loxo ma liggéeyal Sénégal ma defar jikko yi ma dimbali néew ju doole yi bi ma ko waxee ñaanal ma ñaan goo xam ne dafa ma ko déey kon sama xol sedd na. candidat bu coalition Madické 2019 daal dina tontu ñu doon wax Macky Sall moo soutenir candidature man su ma ñëwee si sëñ taxa laaj ko ndigal laaj ko mu ñaanal ma ni ko dama bëgg doon candidat ba pare may liggéeyal Macky Sall boobu su ma ko defee war naa yoon wi moom si boppam war naa ko te ñëpp xam ni dara duma ko jalal si àddina bi dara benn teranga dina jaraluma ma war ma war ma wax wax joo xam ni dëppoowul ak li ma wax sëñ Mountakha. ki di Madické Niang daal dina boucler journée bi fii ci Linguère. ci fief abib si Linguère fi la bëgg développer élevage da ngay seet ni fi ñu toll li noo importer si lait bi plus de 65 milliards Sénégal de dépenser que importations en lait professeur sax la ñuy yow Omar Danso ndax it euh, ki nga xam ne moom moo di Habib Sy fësal nay kaddu ne nag euh, lii di jëwriñ kii di jëwriñ ju ñu gàll wàllum bureau me kaaraange gi di Aly Ngouille Ndiaye dafa nas ay pexe ngir ñu sàcc élection yi ca barab boobee ndax lu lim bu bu tàkk bokk ci ay bureau de vote dañ koo teg te loolee du anam bu jaar yoon ñu wax ay bureau fictif ñu teewlu Habib Sy. pourquoi amuñu confiance ci Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur pour organiser les élections alors ce fait qu'on est ma yóbbu leen toolam tool ou néegu ñax fa dem na def fa bureau électoral ici à crime et il a créé des milliers de bureaux de vote de moins de 300 électeurs. L'objectif c'est quoi Moins pousser l'opposition dans ces derniers retranchements pour que nous ait possibilité possibilité couvrir les bureaux de vote tous ces petits bureaux de vote si c'est 60 euh, si 1000 1000 bureaux de vote de 60 électeurs faites la multiplication ça vous fait déjà 60 000 électeurs pour Macky Sall voter pour lui frauder voler ça passe inaperçu ce n'est pas relevé ni par l'opposition, ni par la presse. Et demain,